salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di ziar bu wér a wér te leen di wax nag namoon nañ leen lu bëree bëree bëri yéen lu ngeen ñu nam rek ñun liñ leen nam moo ko raw foofu tamit waaye yéen a ngi seen émission nag sëyu jigéen ci biir seen première émission ki leen koy présenté di seen xarit seen doomu nday Yacine Top xalifa laale boobu seeni pap waaw kay maa ngi toog nag di wax ak yéen de tey nag dama ñëw seet si ki nga xamante ni nee kenn du ko présenté kenn muy Zeyna tey moom laa seet si Zeyna maa ngi lay baax a baax di la dalal tey sama fay naa la bu baax a baax di nuyu sama mbokku internet yi may seetaan surtout di nuyu waa Elvision Média bu baax a baax li euh, la remercier ci dara bi ma dalal tey ci Elvision Média. ñoo ngi fay sa nuyoo bu wér yow tamit te lay wax Zeyna kan mooy kan mooy Zeyna la puissance. waa Zeyna la puissance euh, jàmm gën si kàmbaaw laay sëy tudd Dieynaba Balde puissance moom liggéey moom a booleeg moom. naa fan la jógee sëy si jàmm gën. géejuwaay géejuwaay nga dëkkoon léegi Zeyna sama émission tey euh, te am li ngi wax ci yow sa liggéey nan koy boole ak sa sëy ci biir kër gi tamit mhm. parce que ñaar yooyu boole ko yombul tamit mhm. parce que gis naa ne yow liggéey en sa liggéey ka tamit dara du ci manqué mhm. léegi yow loolu secret bi lan la secret bi moom du du leen ndax fii loo fi oyofal rek mu oyof loo fi diisal mu diis maa ngi dem di liggéey maa ngi liggéey sama biir kër parce que su ma su ma su ma su ma waree dem liggéeyi fekk fi may liggéey soriwul wala heure bi laay dem di liggéey dina xam nu ma koy nu ma koy gérer sama biir kër waaw. Zeyna sa liggéey yombul de est-ce ko. waaw loolu moom am na moom yombul sama liggéey tontu dafa yomb. <laughs> <laughs> waaw sama liggéey moom yombul ndax heure bu ne mun na ma fekk ci mbedd mi 2 heures 1 heure 3 heures 4 heures heures ba dañuy fekk sax ci àll bi. Mhm. mais comme exemple su ma demee voyage yi dem beneen dëkk dem fa loolu du am problème ndax dama nekk samay wujju peccorgo yu ma comprendre nekk ak sama goro bu ma comprendre su ma waree dem fenn damay xëy fajar bañ na ko sax dañ may tooñ sax naan ma plat dem bi tey lay togg togg sama añ bu fekkee ñoom dañ ma war a eggaleel ñu eggaleel ma yàqal ma waaw sa diggante ak sa goro yéen ñaar complicité bi lan la jàmm ak salaam rek sama goro jàmm ak salaam rek ndax nee naa mooy sama xarit mooy sama doom ndey man aw ma xarit. Mhm. man naa la puissance maa ko wax ci Elvision Média mhm. man sama goro mooy sama xarit. Mhm. su ma amee lu ma metti wala lu ma jaaxal. ci moom laay ñëw wax ko. su ma feebaree sax néegam laay dem tëddi. waaw moom sama xarit la daal. moom sa goro yàlla ko yàlla defal jaamo pare nga. man sama goro man yaa ngi toog man mii tamit sama goro sama xarit la waaw kay. am nga ci droit man daal maa fi gën goro daal. kay ah maa man tamit maa fi gën goro xam nga ni loolu moom du ma toog fi tamit di ko nangu sa goro nag baax na parce que suñu goro la ñun ñëpp. macha allah macha allah waaw kay ma fi may profité rek di ziyaara waale sama yaayu jëkkër jooju. waaw asuba. sopp bopp la jéey maa ngi lay ziyaar bu wér a wér te lay wax ne yow loo dund looyu maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla bàyyi ba ci kanam ak kanam. yow yaa ma jural ki nga xamante ni maa ko ci def ko fii man li may wax Pape rek nee naa ko yow Pape bul bëgg mën naa bëgg déggoo ma de euh, jigéen nan lay tax ko ne taxantaan. Euh, Zeyna lan la affaire bi tamit il faut nga leeralal gars yi dangaa bañ ñu nangu ci say loxo wala tamit leeralal gars sama secret daal nga bëgg a xam. kay. sama secret yaa si dinaa si ñamal tuuti rek mhm. maanaam bu fekkoon ne pan laa ci yor mhm. dama la ciy tànkal kaas. no siiw parce que dama koy partagé ak yaay. non non bàyyi ma defal la kaas ataay amul problème Zeyna moom sëyam ci biir kër du leen mhm. togg bu mu neex def bu mu bëri boole ci kaf boole ci ree boole ci bëre di tarbiwu sama jëkkër di ko topp safa ak marwa su ma noonu la di dox ci lu ma bëgg. mu ngi mel ni Mbacke mu ngi mel ni Serigne Ba ak ndongam. waaw noonu laa koy defee di ko toppatoo bu baax. toppatoo sama goro. toppatoo sama njëkke. indi jaamu indi salaam. ci sama biir sama maanaam daal lépp xeetu baax baax daal maa ngi koy def. lépp li nga xam ne daal sama jëkkër saa yu xëyee rek. damay gën a nopp ma gën koo nopp. di def loo xam ne saa yu ma xëyee sama goro damay gën a bëgg ma gën koo bëgg. sama mau sama wujju peccoor mau de nga ma de de gina la bu mais zeina siis est-ce que nopal na jeeg sis, noppalul jek parce que yassine bo nekkee ci tai ci bi tay tay tay ngay togg nga méré fenen nga am problème tay bo ñëw doon togg ci bir kër gi sax mhm. war nga kaf war nga fo war nga ré mhm. ba tay ku ñëw rek ndax nit man su ci kër xam nga la sa kanam nu mu njëkk sa kanam bu lu demee duma laal sa ñam mhm. moo tax man Zeyna su meroon sax bu duggoon ci waañ di ko wane damay kontaan. man mhm. suñu waa kër xam nañ ko man su may togg. Mhm. damay mel ni lawbe bu nekk ci biir kër. Mhm. fu waay tool di ma dégg. di sàndeeku bu baax. ba mbaa ceeg loolu la war a def. mbaa loo nekk di sànni boole ak xalaat. lépp laay def lépp loo xalaat rek dama xam ne par exemple mu jékki nekk si waayam jékkati boole sàndeeku suuf ñu naan lii lan la. may na yëfi loobe <laughs> la. da ngaa rëb nii waaw <laughs> ah, kay <laughs> tey yëfi la benn. Mm-hmm. nga ni ko. Zeyna sin, c'est extraordinaire waaw dugg ci question bu ma neex parce que dama yaakaar ne maanaam ñi nga xam ne ñoo ngi koy def man damay jàpp ne ñuy dañoo def wala wéruñu wala dara la ndax tey nga nekk ki nga xam ne moom moo nekk sa sa sa li nga bëgg nga nekk ak moom nga xam ne yaayam moo ko jur sukk ko jur ko bëccëgu ndar kàmm bëgg ko yemale ko fenn mm-hmm. defar ko yow ba nga gis ko war koo mën a bëgg ba ñëw ci kër gi di sëy mm-hmm. pour moom war nga xaw mën a fonk liñ mm-hmm. naan ku bëgg a ginaar bëgg ay cuucam mm-hmm. da nga war a bëgg sa goro fonk ko mu bëgg la parce que doo ñëw ci kër gi rek ne noo sama goro moom war a bëgg moom war a fonk moom war a teg fi déedéet yow yaa war a liggéey lu la sa goro di def lu tax mu lay bëgg waa affaire bi moom jàmm ak salaam ka foore ak say secret ci biir waa ba ci sa digganteek ak sa borom kër am na ci ñoo xamante ni seen boroom kër sax ñemewuñoo euh, ñemewuñoo jiite comme maanaam kër ga moom duñ jiite jigéen ñi rek ñooy jiite. Mhm. foog ni nii loolu mooy àddina. Mhm. ñoom tamit lan nga leen di wax. man dégguma nga ne. comme ñi nga xam góor jigéen ñi nga xam ne dañ naan ñooy takk tur ci kër gi mhm. loolu xam naa seen kër moo leen ko may rek. xam nañu naan nit loo gis mu koy def rek dañ ko koo may. waaye jigéen dëgg. ah man xaw ma de man sama bopp. Mhm. man balaa may sentir sama bopp man mhm. sama jëkkër nekk ci kër gi di gérer. Mhm. nga sentir sa bopp. du ñàkk nag am na ñoo xam ne am jigéen yoo xam ne dañuy nekk si kër seen jëkkër jël jébbal leen lépp. ñu nekk si kër gi. daal di sol tubéy rek tax ko dëgër rek. nekk jigéen ju mën góor. loolu du ñàkk du xam nga du ñàkk ci kër. mais am na ñoo xam ne seen jëkkër ñoom ñoo ñoom ñooy gérer loolu mais am na jigéen yoo xam ne dañuy bëgg xam bu ñu xëyee. di def mais. pa ay ngay ngay ngay nga koy toroxal di ko wan ne man ma fi gor mhm. mhm. dëgg la mais amna na ñoo xam tamit dañoo xaw ëppal. Mhm. ñu wara wax ak ñoom tay bu la ko góor ki maye lepp rek yow tam bu jël lepp amna lo xamni ya ko mom mais amna lo xamni xamante suñu kilifa yi ñoko mom ñu ci bayyi xel bu baax baax. tay jamono ji instant bi toll na foo xamante ni góor ñi ñu tak ñaarel parce que ay da ngay dégg ay ñi nga xamanteni tak na ñaarel ñu leen di taala. ay soode fii ak mhm. ay jamaate yow yaa ma gën a xam tamit mhm. ñun ma lay laaj tamit ñun bañu réew la nekk nii waaw man loolu moo ma jaaxal parce que tey comme comme comme ni ma koy waxee rek góor mhm. tey mën nga koo jël sang ko ba mu seet toppatoo ko di ko jox mu lekk di ko jox mu naan mais teewul day dem indi ñaareel ndax loolu seen bëgg-bëgg la moo tax ñu koy def yaa ngi dégg mais tamit nga yor sa yëf bokk ko kenn yaa ko moom nit jóge fee rek bëgg la koo nangul xam nga dafay xaw a metti mm-hmm. te am na ñoo xam ne maîtriser wuñu seen fiir mm-hmm. te nit jigéen boo nekkee ci boo nekkee nit da war a maîtriser li nga xam ne moom mooy sa fiiraange daal mm-hmm. nga bañ see mën a ëppal ay soodek ay lii après ñu tëj la ci kaso bi fi ngay mujjee du neex balaa caa nga dem sa yoon waaw ndax góor moom boo demee bay sëy ak moom moom yow nangul lépp rek dangay mel ni basan rek xam ne lu ne mën a jaar sa kaw waaw góor ñi de moom mënee nañ bu ne ñoom moo tax it xam nga c'est faral li de daal di xaw a doy waar parce que dañ lay wax am na ci ñoo xam ne nag ñoo ko def dëgg neexul nañ leen ko waxtaane mhm. am na ci ñoo xam ne dañuy jël seen di leen euh, gëmloo ka ni duñ leen takkal mhm. ñu takkal leen ñaare ñuy mhm. loolu góor ñi ñoom ñoo koy def ñun jigéen ñi nag dafa ëpp moom kenn waxaale wu parce que ñun dañuy mujj tooñal ñu tooñal moo tax affaire yi di ëpp léegi yow Zeyna fiir yow dangaa fiir wala fiir waa yaasin man damaa fiir ndax ku bëgg da ngay fiir mais ku yor sa yëf nga defar ko moom baax ñaan nga yàlla bokk ko dégg nga ma ma damaa yor sama yëf sang ko mu seet defar ko ba mu baax su ma gisee ñeneen di ko gis ba di ko bëgg kon man damay taxaw sant yàlla xoolaat sama bopp ndax tey boo yoroon sa kenn bëggul foo romb ñu ne cam ma wala foo romb ñu ne jëkkër diwañ ko waaye tey boo yoree sa jëkkër macha allah mu mel lu mu war a mel fu mu toot na ñi fu mu tourné nit ñi bëgg ko ba nit ñii di la ko wala dara loolu sant yàlla la waaw dégg naa la bu baax. mais may wax ba tey sama jabar yooyu ci kër ga laay wax ay da yaa siiñu lii teew maa takk ñaareel da ngeen da ngeen am mujj nii tamit. bu leen takk ñaareel lu leer laa def nii ko amee yow lu am mujj dina ci mais ragaluma ko na ñëw. ragaloo mujj yow. mais Zeyna instant bii 31 baa ngi ñëw noo koy préparé. comme jigéen bu baax muy préparé 31 man moom chaque jour 31 chaque jour la ci man. waaw koy préparé bu baax man bañ ko ba sax maa sama jëkkër. couple dana lañ ñu tuddee ndax chaque 31 wala chaque Saint-Valentin ñu def buzz ci internet bi. Mhm. def buzz ci ci ci ci ci Facebook bi. Mhm. dinañ wax ne maa ngi ñëw dal seen kaw rek du ma may dara. Mhm. waaw yaa yaa sa jëkkër ci biir néeg. waaw ñëw du yomb fépp. nan nan ngay nan ngay nan sa jëkkër ci biir néeg bi comme par exemple toppatoo bi nan lay demee. toppatoo bi yaa ah, seen bëgg rek jaagar jaagar rek <laughs> waaw damay def biir yaasin damay def ndax jigéen bu ne booy sëy ñaan nga yàlla def ndax tey euh, sëy du togg rek du fóot rek ndax tey dañu am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne mhm. sëy ñu baal ma ci bi lal kese la mhm. am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne sëy togg kese ak fóot kese la mhm. loolu ci la bokk mais loolu kese du sëy ndax sa jëkkër moom ñi ngay tojee sa bopp gi ndax yaa ko xam ñu ngi koy toppatoowee ba mu toog yaa ko xam. parce que tey dama compte tey da ngay gis ay xale jigéen yoo xam ne da ngay gis ñuy ñuy ñuy jaaga jaaga di rey seen bopp. di jël seen xaas di ko yóbbu si sëriñ. loolu xelalu ko benn jeeg yaasin. parce que tey sa jëkkër xaalis bi ngay jël di ko yóbbu si sëriñ. xaalis boobu mun nga koo jël yokk ko sa say xeetu say say. yokk ko say cuuraay. Mhm. wala yokk ko say fer. Mhm. wala say parfum wala say dara. Mhm. wala say rideau say xeetu baax baax. xam nga góor dafa bëgg loolu. barki Serigne Touba nga def ko ci. tey sa jëkkër du ah xaw ma de. ku nekk daal yaa xam. gëw ma daal mu dem seeti leneen wala bu demee feneen leneen fees bëtam ndax góor da nga war a maanaam da nga ko war a defal loo xam ne. tey bu demee fenn. dara du fees bëtam mais pensa dañuy gis góor ñoo xam ne. seen jabar yi duñu leen toppatoo bu ñu demee fenn dañuy mel ni. Mhm. kuy say. ñu yàq seen deru jëkkër yi loolu seen deru jabar yi loolu tamit war <laughs> mais tamit yow kii Zeyna gis naa ni ni nga waxee nii de sànq ba léegi ni ngay waxee ak man sëykat dëgg moo koy def. Mhm. Zeyna kan mooy sa idole ci sëy. sama idole ci sëy sama yaay la. Mhm. sama yaay jàmbaar la woon ci néegu say bu yoroon téeméeram sax da koy dem jëndal jox gorom mu lekk. jox jox jox jëkkëram mu lekk magisunun ko mm-hmm. ma gis nu mu doon sëyee tey mm-hmm. ba yàlla def mu dëddu aduna mm-hmm. ma ma ma ma gis sama beneen idol, muy sama mag sama yaay sama xarit muy meeram kan di ko nuyu waal di nuyu jëkkëram mu nekk jàmbaar ci biir néegu yam taq sëram taq tubayam taq ba dëgër di sëy di def mu war a def ci biir kiyam mu daal ma ci lu muy def dal, moo tax muy góorgóorlu bu baax te ñun xam nga ay lañ te sëy la xam daal. moo tax waaw ñun sëy lañ xam. moo tax daal ñun boo demee sax dañ naan la delluwaat fa nga jóge waaw ah, kay <laughs> waaw kay. loolu baax na ci yow ñu daaj la ci kër gi. <laughs> mooy wax nag 31 décembre bi ñëw mais kaay leen nag ma yëgal leen li gars yi xewal. te xale yu góor yi de yi. nii dañuy bi ñii de. Hmm. sol seen yëre olof ba jeeka jël nag seen yëre tubaab def ci seen poche suñ demee ba ca baas na dinañ si nag dinañ photo envoyé seen jabar ñu leen jàng yaa ngi toj. Zeyna xam nga nu ñuy mujj une ñu quitté foofu dem sol seen yére dem soirée ànd ak seen liggéey maa leen boobu lii de la def ci décembre bi ay ca yow looy tàggatoo ak koy gërëm. maa ngi tàggatoo di nuyu surtout waa El Vision Médias bu baax di leen sant di leen gërëm di nuyu sama yëf sama xarit sama tipo de cœur sama ndox mu sedd <laughs> loo ferees nee na la yàlla na yàlla defal jàmm. Mm-hmm. Euh, fi nga bëgg a egg sa liggéey yàlla na la fa yàlla eggal na la fa cat ak saytaane. di nuyu sama xarit. Mhm. sama doom day mhm. sama goro. Mhm. sama yaay. <laughs> di ko nuyu. di ko nuyu bu baax di ko waxal yàlla na la yàlla defal jàmm. yàlla na yàlla bàyyi fii sunu kanam lu lu bëree bëree bëree bëree bëree bëri. nga mun a fekkee say njëriñu say set setaati set. bañ lay weer di la weer yi. yaay yàlla na la yàlla defal jàmm. di sant aw alem yi nga xam ne. moo doon defar ah, jus yi di ñu ko partagé sànq. <laughs> nga xam ne maanaam lu defar Elvision rek moo ko def. di nuyu éléments yi bu baax di nuyu samay wujju peccorgo ñoom Ngone ñoom Maguette Diaw. Mhm. samay njëkk ñëpp ku lim juum. mais yal nañu yàlla defal jàmm daal. waaw ay fii nag la ñuy yem ak seen émission sëyu jigéen ci biir kër. waaw man yaa si maa leen ko doon présenté Seydi Pape Diallo boobu moo nekk nii toog tey invité woon ki nga xamante ni mooy Zeyna ah émission bi nag macha allah dama naan. Euh, Zeyna moom wax na lépp gars yi nag may wax ni rek ngeen xool ci Zeyna parce que tamit li fi wax nii waxi sëykat rek nag la fi wax te jëfi kuy sëy dong la fi jëfe fii la ñuy yem ak yéen di leen jox seen beneen numéro euh, sëyu jigéen ci biir kër merci beaucoup di euh, nuyu waa El ñëpp di leen ziar ak loolu si dama ca ndaam Zeyna moom tamit dëgg neexul waaw sonn na ci liggéey bi trop moom tamit ci suba ba léegi moom fi dëgg neexul ay ca fii la ñuy yem ak yéen